Euh, Lamine Sané Diop di grand frère ci Pape Bouba waaw. Mhm. d'accord ba nga yëgee li xamante ni moo di nouvelle bi tey naka nga ko dundee. waaw naxar rek ak tiis di delloo di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci yàlla lañ jóge te ci moom lañuy dellu. Mhm. di dolli di sant yàlla bu baax a baax a baax di bon ni ñu ko dundee du lenn lu dul naxar ndax euh, nit bu toll nii euh, Pape Bouba donc bu fi jógee tamit euh, du def lu dul métti la parce que li nga bokk ak moom du question li nga bokk ak moom sax mais de part li mu jot def donc loolu moom il faut ñu naxarlu ko bu baax a baax a baax waaw. Hmm. ndax mën nañu xam ndax feebar bi nga xamante ni tey moo ko yóbbu ndax tëral na ko lu yàgg en fait. bon pour vous dire sa maladie c'est vrai qu'il a euh, pour euh, presque boo xoolee ça fait presque euh, deux ans et demi trois ans hein, presque bon parce que bon moom euh, je me rappelle bi mu fi jógee bi mu mujj fii c'était en 2018 donc 2018 bi mu ñëw jour année boobu sax fi la tabaski au fait. parce que moom d'habitude chaque année il venait en vacances chaque année dafay ñëw avec sa petite famille tu donc euh, année boobu mu tombe ak peut-être tabaski ji donc j'ai insisté à qu'il reste parce que gëjoon na tab gëjoon na fi tabaski ak ñun donc mu resté ñu tabaski après deux jours après il est rentré donc euh, mu nekk ay moments yu yu xaw a euh, intense yu ñu dund ak moom aussi parce que ñëpp xam nañ footballeur professionnel donc t'as pas le temps doo am jot euh, et puis ak activité yooyu su daan ñëw vacances ci doo ko bu daan ñëw vacances il n'avait presque deux semaines wala trois semaines au maximum donc mi ngi noonu ko yooyu lañ daan dund ak moom mais bon mais sant rek. waaw yan cest à man pour fait au fait. man ak moom dafa ñu amoon benn complicité parce que man. dama doon yi mu nekkee jaraaf man maa doon football yëgu. boo leen xoolee dans les archives du di ngeen gis. yëgu année bi muy gagné coupe du Sénégal c' était en 98. j' étais l' unique buteur de cette ñun on parlait que de loolu donc loolu moo indi suñu complicité bu baax man ak moom. dans cette fin parce que ñaar rek ñoo fi doon football ak sama beneen petit frère bi moom après parce que moom moo ñu foofu mais. ñun année yi vol boobu il était au Jaraaf euh, année yooyu man maa ngi woon Yogo après laa jógee Yogo dem compagnie sucrière mhm. avant may dem Tunisie ak euh, Suisse donc ci la en presque man 2002 laa arrêté sama carrière de footballeur voilà. ku ne xam na euh, ci réew mi mm. dafa am doxalin boo xamante ni moom ngay doxee ndax mën nga ma wax ay qualité ci lu jëm ci wàllu woowu maanaam ci colinam ci bugg star ci non cest xam nga nit mm-hmm. ku ci nekk ak niñ la yaree moom dañ ko am nuñ ko yaree mënul mel neneen lu ni mu mel mënul mel neneen ni mu mel parce que noonu lañ ko yaree tu vois bon ñun fii dañu nekkoon euh, dans ce quartier là nekk une cité HLM màggee fii juddoo fi màggee fii yaroo fii on a fait tout ici lépp fii lañ ko defee fii donc moom noonu rek la mën mel mënul parce que tamit euh, il n'a jamais changé il a été toujours lui-même il n'a jamais changé buuba bi nga xamoon démb mooy buuba bi nga xam tey dara taxul mu changé avec tous gloire yi mu am yëpp et tout ça mais dara taxul mu changé toujours rester soi-même et puis jox nit ñi cër respect jox nit ñi lu muy def dina consulter nit ñi parce que mun naa saxoon ne moom il faisait sax moom au fait du moom sax moo def moom ñun ñoo doon def ñun parce que moom peut-être boo xoolee dans cette famille là c'est il fait partie des derniers moom c'est l'avant-dernier Balla l'avant le dernier la la mag ci kër gi ci famille bi ci ñi gën a tuuti la bokk mhm. Mhm. Mhm. donc euh, mu xam place am xam ni mu war a comporté woo ak nit ñi jëflante ak nit ñi et puis lépp lu muy def tamit mm-hmm. jiital ci nit ñi parce que loolu la am voilà moom maa moom daal gàcce ngaalaam waaw bon c'est vrai que avec sa maladie et tout ça donc euh, gëjoon nañ déggante donc c'est parce que mm-hmm. benn benn instant boo xam ne il pouvait pas mm-hmm. il pouvait pas parler a changé tout. Mhm. xam nga mais da xam donc mais euh, on était euh, ñu ngi doon en contact direct ak moom donc xam nañ tout ce qui s'est passé mais mhm. bon mais nag c'est dommage que mu demee noonu mais sant yàlla rek sant yàlla. sant di la gërëm di la ko na koy amu koo leen ko jaal moom koy. ñu ngi koy de toute façon ñu ngi koy jaal Sénégal bi yëpp yëpp yëpp yëpp ndax buuba moom buuba Sénégal yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp la mm-hmm. parce que ñun moom peut-être mbokk gi ñu bokk ak moom rek la mais bu depuis que bi mu nekkee ci équipe bi ba léegi mm-hmm. donc nee naa ne njabootu Sénégal Sénégal la mm-hmm. waaw waaw Sénégal ko moom ñun moomatuñ ko waaw donc moom ñun peuple sénégalais lañ koy jaale ñun waa peuple sénégalais ñoo ndax sénégalais yi boo xoolee dans l'unanimité boo xoolee nit ñi témoignage yi ngay dégg rek day daw sa yaram mais bon nañ ko ñaanal rek yàlla yërëm ko te jéggal ko xare ko àjjana yàlla def mu xippee ci keppaaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw mu noonu daal